te contenté bu baax baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média ak ci li nga xam moy Fekke TV tay nak ñi ngi seet ci suñu grand suñu xarit ñu fekk fi nga xam te moy ci Arena nationale mi Pape Sarr créé structure bu bees tuddé ko Sarène production waye ku wax Pape Sar wax sa ak digënté mak wa dañ koy nuyu baye ko nuyu ñu ñuy suivre su ko ci waxtaan bi Pape Sar ma ngi lay nuyu de la ziar waa Thier maa ngi lay fay di la nuyu bu baax di nuyu suma frère bi Makan. Mhm. di nuyu wa Fekke TV yep di nuyu tamit euh, suñu site bu bes bi. ETDR Média ETDR di di di la nan dalal jàmm. Mhm. wa parce que ki tay muy Fekke TV ak muy. ETDR ETDR yep dañ ci am content pour def ci parce que tay mhm, suñ ci waxe rek. li dañ ko wara def parce que taxawayu kanji si social si jappale nit ci taxawu nit. kon tey man soo ma woowee. waaw même lu ma jàppoon dama koy bàyyi. dëgg la sa yëf la dëgg yàlla sama yëf la. Mhm. waaw parce que taxawu na ma nag côté bu nekk. Mhm. voilà indil naa nit. ci ci ay mbiru jaambur rek laa doon woo ay nit ma gis mu si taxaw. di ko mhm. jàppale. Mhm. ba pare muy suma lépp ma koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal li mu dugg tey. Mhm. sumb ko yàlla na ci gis xam nga. lu weesu njortam. amiin amiin waaw di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi yàlla taxaw ko ba mu gën a mën li muy def nii mu gën koo mën parce que mu ngi jàppale ñëpp. dëgg la maa ngi koy bu baax a baax tey ci biir làmb. wax nga ko tey mu am lu nga xam te ne bii entreprise la muy ETDR Média. wala boog e lu ne ngi ci biir. Mm-hmm. tey mu nekk sponsor numéro un ci wàllu làmb mm-hmm. di jàppale promoteurs yi tey ku tëgg rek nga gis ñu takk mm-hmm. koy delloowaat. loolu tamit maa ngi koy waxaat maa ngi lancé appel lii ci promoteurs yi. yi nga xamante ne tey mu ngi leen di mu ngi leen mu ngi baas rek. loolu. du yombul waaw yombul mais ku la ñëw. xam nga nga takkal ñëw ngay tëgg mu jëkkati alalam jox la mhm. bëgg naa tamit boo amatee événement bu mag waaw nga gën a communiquer ci kanji dëgg la surtout surtout loolu mhm. man bëgg naa loolu mhm. bëgg naa nga koy jaayal ay produit ay produit am xam nga comme même suma frère tamit Aziz Ndiaye moom Aziz Ndiaye waaw moom it mention spéciale gis nañu tamit ñu j'adore ku ñëw mu taxaw la waaw loolu laay wax képp koo xamante rek yaa ngi may dégg tey ngay def événement bëgg naa tey si lii kañ ñi nekk. waaw nga jàppale ko si. nga jàppale ko si am na solo ñu dugg ci loolu nag ñëw ci li nga xam te mooy li xew muy lu bees. Mhm. Sarene production. Mhm. mais Pape Sarr Pape Sarr lan moo la euh, motivé wala lan moo la indil xel ba tax nga ni da ngay créer structure tuddee ko production. waaw xam nga Pape Sarr dafa nekkoon ci rent DKR muy suma frère yi muy. Alain waaw ñoom Alain waaw Jumbo léegi nag rent DKR bi ak Sarine production bi presque benn la. benn la parce que tey staffu rent DKR ñooy ñëw taxaw ma. Mhm. ak sumay mbokk ak sumay frère. Mhm. dafa amoon a euh, benn coow bi ma fi amoon. Mhm. muy coowu ñi doon dal ci kilifa diine yi. waaw waaw waaw waaw. ba caabi féete ma ci ginnaaw. Euh, dafa am suma benn benn nit boo xam ne nag musuma ko gis. ku ñuy wax Mbaye Diop. bay Diop muy murit mhm. di taalibe moom mu ngi ba États-Unis mhm. bi bi affaire bi dalee sama kaw ba ma génn bi ma nekkee foofu sax ma gis teraanga bu mu defal suma yaay mhm. jëlal ma ay avocat taxaw ba yàlla indi ma mu ne ma nag Pape Sarr dafa doy ngay toppate ay mbër wala ngay def nii wax ma lan nga bëgg ma ne ko man bëggumaa tukki man bu ma bëggoon a tukki. waaw yaa ngi mooy gis que. Mhm. lii ma doon tijjee ay dibiteri yi dem yóbbu na ma Europe bu yàgg. dëgg la dëgg la wallaay dëgg. Mhm. bi tukki yombee. Mhm. tukkiwu ma. kon bi mu toll ni man bëgguma tukki lii laa bëgg muy làmb. mu ne ma lan mooy ñaata mooy tëgg làmb. waaw voilà lebalu ma la. saraxuma la saraxuma la lii sa alal la. ndeysaan bi ma ko waxee ni man de temps bu ma ko yoree dinaa tëgg làmb. billaahi wallaahi tallaahi mu yónnee. tegu ci baat tegu ci baat mbay jóob laa mbay jóob waaw mbay jóob waaw ndeysaan man gis nga man tegaguma. waaw tegaguma journée de. waaw mais tey Iliman Lam. Mm-hmm. dafa yëkkati xaalis bu bëri. ndeysaan jàppale ma ci. jàppale la si ah, Timbo. Mm-hmm. Abdoulaye Timbo waaw Ba. Thierno Ndom Ba. waaw dégg nga. Mm-hmm. yu bëri la ma jox. ndeysaan Thierno Ndom. mook Tafa Ba. maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax. Mhm. gis naa taxawaayu Iliman Lam ci man. Iliman Lam ak Jamil Nuuru laa parce que tey yombul tëgg gu ma yàlla may ma ñetti sponsor. ku mel ni aussi construction moo ngi muy. koo xamante ne tey ci wàllu tabax comme Kandji waaw li muy def lay def moom mu ngi ba Atlanta mhm. tey artistes yu nekk Amérique yëpp moo leen tabaxal foofu seen immeuble mhm. tey mun nga yor fii sa kër amoo loo ko tabaxee mhm. boo bëggee nga ñëw mu defaral la ko R plus dëgg la mu ngi fii tey Ousmane Cissé tey su lii lépp amee moom la moom taxawu na ma ñëw na ma boo ma takkalee baas bëgg naa bëgguma baax na mm-hmm. boo ma takkalul yow suma frère nga lii maa la ko dimbale ja loxoom ñëw na muy xaritu jamaïcain waaw maa ko présenté jamaïcain moom it ku bëgg jamaïcain la mm-hmm. mooy usum aussi moom it yow maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax sama beneen sponsor bi tamit muy nuru laa Jamil Jamil mm-hmm. Nouroullah moom it maa ngi leen ci woo bu baax même Katarina tamit jàppale na ma waaw waaw moom it kuy kuy taxaw ku taxaw làmb la kuy tëgg làmb fii day ñëw taxaw la dëgg la Katarina kon tey man sama partenaire yi laay njëkk a nuyu ba pare mhm. ñi nga xamante ne tey tëggaguma taxawaguma mais gis naa seen loxo ñëw na ndeysaan seen loxo ñëw na billaahi wallaahi wata defalaguma leen dara mais tey seen ñàkk ñëw na ci man ndeysaan may gërëm bu baax a baax a baax Iliman Lam Iliman Lam encore une fois mhm. Iliman Lam maa ngi lay gërëm bu baax a baax mhm. xam nga yaag Timbo Timbo billaahi wal kitaabi ndeysaan tey bu demee ba sama mbir yi avancé ñoom ñaar bokk nañ kenn di koo xamante ne tey moo dem jële ji kenn xamul fu mu jëlee alalam waaw ak Europe ak bitim réew nu mu méttee waaw ñëpp xam loolu mu yëkkati som boobu teg ko sama loxo pour ma ñëw liggéey muy Mbaye Diop mhm. maa ngi lay gërëm bu baax baax a baax mhm. te moom kuy liggéey rek la bëgg waaw te nee naa ko ñëwal ñu liggéey ndeysaan nii la affaire bi demee noonu la demee mooy wan tey Jimbo ak mhm. Alain ñoom ñëpp ñu ngi sama ginnaaw staff rent DKR yi ngeen doon sa ginnaaw waaw ñoom ñëpp dam koy boole ak sama staff ak sumay mbokk uutuma kenn man sumay xarit laa indi samay mbokk ak suma famille. ñu taxaw ñoom laa indi ñëw ñu taxaw ma ñoom ñoo nekk ci moo loolu moo indi. Saaren production. Mhm. Saaren production dafa war a inaugurer débiterie am le jardin public bi parce que débiterie Saaren la tudd. waaw waaw bi loolu tamit. Mhm. si ba tey ci Saaren production la bokk. maa ngi war a inaugurer débiterie bi mu ngi ci jardin public bi. Mhm. Saaren xurunaar maa ngi ciy woo ñëpp. ndeysaan Saaren production boobu débiterie boobu tey. jarul ngay ñëw naan ma ñaata jëlal sa càq-càq bi indil la ko. indil la ko ba sa kër. waaw yaa ngi may dégg est-ce mm-hmm. wax li nga soxla ñu indil la ko. lu am sax cinq minutes. te loolu laay liggéeyee man euh, wékkuma ay yàpp wala di jaay xar di xaar kaay jaay ma. man téléphone laay jaayee. Mm. foo toll ak foo munte nekk. dinañ la indil sa yàpp loolu mooy Saareen production Saareen production mm-hmm. ñu ngi ci ay location voiture waaw ah mais kon kon yaatu production dafa yaatu mm-hmm. ñu ngi loué ay oto ñu ngi ñu ngi jaay ay terrain. Mhm. ñu ngi luye ay kër. ku mhm. mel ni aussi Ousmane Cissé. waaw mu ngeeg ay mu tabax na cité boo xamante ne tey soo buggee tey nga nekk salarier boo ñëwee. Mhm. mun na la jox kër. nga mhm. koy fay ndànk-ndànk ba mu lay jox sa caabi mhm. kon maa ngi nuyu Ousmane Cissé bu baax a baax kon ah. Sarène production nii la demee noonu la demee mais Sarène production bëgg naa xam ne comme ñëw na <laughs> ñëw nga euh, yan combat nga taxawal wala looy waaj pour l'instant yi yéen xam ngeen ñi may waaj xam nañu presque réglage bi moo ci des waaw xam nga li maa man du ma dugg si combat jàmbur hmm, waaw man tey su ma déggee suma frère Fallou Ndiaye mhm. mu ngi dox benn combat tey laay taxawee waaw loolu wàllu gor la voilà man képp ku ma gis mu ci dox. Mhm. damay taxaw na de buggu tamit ma tamit may dox sama combat. Mhm. comprendre nga. buguma ay wax dëgg la donc liggéey laa bëgg ma mhm. nga dox combat chat bu walo la caat bu waalo di adversaire chat bu walo nga bëggal adversaire na nakaree outal adversaire chat bu walo bu écrire walo mom lay outal adversaire comme grand combat moy grand combat dugar dugar peul pël école de balagay bu école de balagay mom lay outal adversaire spécial waaw mhm. ñooñu waxtaan naak ñoom waaw ba féete boor mhm. waaw mhm. waxtaan naa ak ñoom dugaar moom. maa ngi koy utal adversaire maa ngi koy utal adversaire. comprendre nga. xam nga ban bëgg naa mbër bu dul taamu. bu dul taamu voilà ma sama la woowee nga ne ma utal ma diw ak diw ak diw rek. sama télé sama appel moom dootoo ko jot. dootoo ko jot voilà. mi ngi noonu mais nag est xam nga euh, ci li ngay dëgmal par rapport ak ci li nga nekkoon ak ci li ngay dëgmal. Hmm. si xam naa ko waaw non am man dama tëgg caat bu booy bambara stade Amadou Bari. Amadou Bari moom Baye Ma Ndiaye mu daan Baye Ma Ndiaye. waaw maa ko tëgg. loolu yaa ko tëggoon Pape ma ànd seeg Pape Sow promoteur. loolu maa ngi fa woon maa njëkk jox avance euh, Jadli. Mhm. Mhm. la ñu tëggoon ànd ceeg Pape Sow. kon mhm. man du ma gan ci laam. dëgg la ànd ceeg lent DKR tamit. tëgg ñetti journée. kon lii man du ma si gan. xam naa ci lu may dugg ba pare ma dëkk fii. Mhm. xam arène nationale. waaw waaw waaw xam lépp lu nekk xam nga lënd lënd yi nekk ci làmb yëpp xam naa ko. xam nga ko comprendre ma si woon ak ñëpp ñëw jàppale ma taxaw ma. Mhm. waaw waaw man nag ma ma dama cay lancé nag mbokkuma ci benn association. bokkuma ci benn association voilà man bokkuma ci benn association wu. Mhm. promoteur. man ñëpp laa boole def leen benn bokkuma ci benn association wax dëgg yàlla. waaw bugg naa tey su ma soxlaa jéey waaw dem gisi ji jéey mhm. wala Pape Abdou Fall mhm. wala Jamaïcain wala Mor bu parcelle waaw yaa ngi may dëgg mhm. man loolu laay bëgg nga bëgg a doxalee ko voilà man bokkuma ci benn association uh-huh. bokkuma ci benn clan wéeruma ci kenn uh-huh. waaw site internet yi nag waaw maa maa ngi leen si woo ñoom ñëpp ñu jàpp ci dugal seen loxo su leen neexee euh, nu mu tudd sax loolu ñuy joxe Euh, agri euh, accréditation waaw jarul ñu tak, takk hmm. nañu ñëw dugg ci stade bi jël seen làmb waaw loolu moom neex na dégg <laughs> su sama làmb waaw bañu ma sax ku def direct hmm. dam lay wax quoi dëgg la pour noppal leen parce man tey waaw man xam nga hmm. dañoo bokk liggéey bi waaw ñu ne yow ñoo far waaw dama ne la li ñu leen di tere man du ma leen ko tere doo ko tere leen koy yombalal maa leen koy yombalal comme yombalal naa leen ko kon sama combat bu taxawee dama bëgg ngeen liggéey ci liggéey ci incha allah loolu mooy yoon bu benn journaliste yi ñëw di ma naan agrisation la xaw ma. ñëwal dugg. ñëwal dugg nu mu la neexee. laajuma la dara ñëwal dugg. mi ngi noonu loolu suñu yëf la takkaloowu ma kenn dara ñëwal nga yore sa site internet foo mun munti dugg. waaw terewuma la làmb ji ñëwal nga dugg. terewuma benn journaliste. dëgg la sama làmb dëgg la. fu waay neex na ñëw dugg. Mhm. léegi tey Pape lu muy xaar ci waa Pikine ginnaaw guddil na Pikine yendool na Pikine bëccëgal na Pikine tey yaa ngi jëm ci langu tëgg làmb. Mhm. looy xaar ci waa Pikine waaw li may def mooy dañoo dooroon ci. ñëpp doon topp Balla Gaye numéro 2. waaw mooy sama invité d'honneur. Baboy Mborodi Baboy waaw. làmb ji moom laa def invité d'honneur. loolu foor na de. ba pare ma jël tëggkatam. waaw boo xamante ne ñëpp moom lañ ko xamee. Mhm. ma tuddee ko drapo spécial bi muy xaali mbay dogo xaali mbay. waaw loolu dama koy delloo baabooy waaw loolu la fort parce que ñëpp xoo foogoon nañu sama diggante ak moom jeex na ci àdduna wallaay dëgg la wallaay waaye suma frère la mhm. mu doon def benn affaire rek boo xamante ne xëy na ñu neexuñu waaw mais tey reconnaître na affaire yi mhm. ñu nekk si jàmm ñu ngi wootante ñu ngi demalante ñu ngi dikkalante mhm. xam na xam nga xool du bëgg ba pare bañ bañ dëgg la ñëpp xam nañ ni man dama bëggoon baabooy wallaay dëgg la baabooy laa def sama làmb ji invité d'honneur ndeysaan loolu fort na ma koy wax na ñëpp ñëw gunge si baabooy moom laa def sama invité d'honneur sama mhm. ba pare tëggkatam waaw principal am muy xaali mbay mu tuddee ko drapeau <laughs> loolu am na solo kon loolu ñi ngi ñaan yàlla suñu borom yóbbuñ ci jàmm salaam ndax tey mhm. Pape Sarr bu tëggee combat tey képp ku nekk ci làmb rek mhm. jàppal ni sa billet ndax ñuy tamit saa bu ko soxlaa bu ko wooyee du ci teg baat da ciy taxaw def ko comme ni ñu ko bëggee kon na ci gars jàpp bu baax a mais Pape keroog seetaan bi nga te sa xarit def na ko baax indi na Bombardier mu bëreeg. Eumeu Sène indi na Balla mu bëreeg Boy mhm. ay kàddu jóge ci moom mu njëkk gef sorti mhm. mu non dañoo dafa wax waaw si affaire u gàllaaju Eumeu Sène mënul daan Bombardier mhm. yàlla def nag ma nekkoon ku jege Eumeu Sène ak combat bi fu ma tolloon parce que tey geeru Eumeu Sène yëpp dama koo gañe <laughs> <laughs> yi mu geeral yëpp dama koo gañ am ndam te duñ ko saaga man la ñuy saaga. waaw waaw. soo xoolee commentaire bi non duñu saaga Eumeu Sène. Mm-hmm. Pape Sarr la ñuy saaga waaw. Mm-hmm. man guerre yi ma guerre ak Pikine yëpp. samay mbër barki yàlla dem see am ndam. léegi nag dama gis sorti bi. waaw yow baa maa ngi lay jégalu. Mm-hmm. lépp loo xamante ne rek waxoon naa la ko. si làmb jooju. dégg nga sama mbokk xalpulaar la. waaw waaw walaay sama mbokk xalpulaar doon mi ni mi tukulóor laa koy wax. waaw da ñibbi ñibbi kaa mawnam kaa baabam. Mhm. ma ma ne ko suma papa la. waaw su nekkul suma papa nekk suma mag. sa mag la waaw léegi nag man maa ngi koy jéggalu. Mhm. bu baax a baax a baax a baax a mhm. maa ngi koy jéggalu parce que làmb la woon. waaw xëy na dafa am fu ma tolloon suma mbër. yaa ngi may de gis que. ñooñu ko tey ku ma waxoon tey dinaa jël ay mbëru géejawaay di leen tëgg. waaw gis ngeen ni meloon ak géejawaay. waaw waaw waaw dër bi la woon mais tey samay adversaire géejawaay la ëppee. ba tey sa foloon daje saafonte mu may fekk di ma vocal ak lépp ndeysaan jeexul waaw wallaay jeex na mhm. làmb la woon rek te man billaahi musuma génn ci cadre làmb dëgg la yaa ngi may mu mhm. naan ay xeer yi man du ma ko ñuy sànni xeer sànnil xeer baaxum ngay <laughs> sànnante <laughs> waaw man damaa ñaaw làmmiñ comme yow euh. <laughs> ba pare ma xamal ko loo xamante ne barki Seydina Muhammad ñu mu bokkal ndey ak baay xamaluñ ko mais tamit parce que tamit déglu ma làmb dafay jeex waaw Modou Lo sama frère la mu mhm. nekkal seen frère la la bis bu sama tur amul damay tëgg làmb amul ne bis bu tuddatee sama tur hmm. billaahi wal kitaabi laa la wax nii billaahi dootu ko defati parce que ma ko wax lu aw ma lu ñaaw ko ma waaw man sama waxu làmb li ma wax Balla Gaye du ko wax Modou Lo hmm. li ma wax la de guerre ci làmb waaw ci ay combat du ko wax Modou Lo hmm. mais nañu yem ci cadre làmb musoo gis Gris Bordeaux génne ci làmb ñam lu ñaaw musoo gis Balla Gaye génne ci làmb ñam lu ñaaw musoo gis góor a soog génne ci làmmiñam ci lu ñaaw mhm. yaa ngi may dégg gis nga mhm, mhm. góor a soog mi ngay koy gis nii làmmiñam lu rafet rek lay wax ku yaru la xaadim gajaga conk siin maîtrise dolfu super jamono ndam si yàlla si Mathieu Pereira dama ne la man damaa xam foofu ñuy sumay nit fii ñu taxaw nga may introsé nii fii laa leen doon gunge ñu ñibbi parcelle ñuy dem seeraas ma leen di jëndal samay kilo yàpp ñuy lekk ba ko jox <laughs> yaa ngi may dégg la ku ci génn nag foofu hmm. nekk foofu juddoogoo yaa ngi may mag xamal la lu ne weng hmm. nga taxaw xamal say waajur lu ne weng nga taxaw koko Modou Lo ah, mais Pape li nga yaa ngi wax lu grand Pape non dama xamal mu ngi lay xool mu ngi lay Dakar waaw billaahi wallaahi watallaahi fana dama ko xamal lu ne weng moom Modou Lo moom Modou Lo hmm. traité dof boobu mu ma traité. waaw bis bu si delluwaatee wala ay damay sànni xeer ak affaire yooyu noonu yooyu noonu. Ama Balde moo lekk avance am. mais semaine semaine nekkul loolu da koy def ay ay fas nii rek ma ci loolu. man ma kaf ci loolu de. kon daa wax bi kon kii na la dama tuusa dafa noonu balaa mu may tuusa dafa tuusa samay mbokk. ok dafa tuusa samay mbokk. Mhm. billaahi wal kitaabi dafa bu jàkkoo Ama na ko lekk su ko munee. sama yoon nekku ci. ñoom ñaar la ñoom ñaar la. mais lépp lu ma war ci diggante Ama Balde ak moom dinaa ko def. ok parce man Pikinois la. Pikinois la yaa ngi may dégg est-ce que. Mhm. na yem ci cadre làmb muy moom muy promoteur boobu di ko topp. Mhm. muy ku may tontul man kenn du ma tontu. yaa ngi may dégg est-ce que parce que mhm. ci cadre làmb laay def. su may wax sax damay am na ñoo xam ne dañuy tëgg fii làmb du ma fi dugg. waaw du ma dugg seen lamb ok foofu noonu ñooñu noonu. waaw bu ñuy tëgg fii du ma fi dugg. ñooñu ñan la. mooy promoteur parcelles yi. du fi dugg. Euh, mais su di gën a parcelle lan la Pape Sarr. non da parcelle dara waa écurie Moussa Dioum bokkuñu si de. waaw. <laughs> Moussa Dioum bokku si de. Euh. ak ñoom Albouri bokkuñu si de. waaw ñoom laa lay wax nii seen affaire yooyu noonu. ñuy def noonu dañ ma si génnee si nii wala si naa. Hmm. man du ma pikin waa yooyu de. man fii laa dëkk damay su may ñibbee du ma damay jàllale sama scooter tëb miir bi dugg suñu kër. man fii laa dëkk. waaw te Thier billaay walkataa bi tabax arène nationale dugaluma ci làmb. Hmm. da ngaa yàgg tabax arène nationale moo leen dugal ci làmb. ok du dëgg. Mhm. xale bu nekkee ci écurie nan nekk kilifa ba. waaw mais bu génnee def benn sortie bu ñaaw. mu mhm. xam ne mu leer na li kii ci vie privée nit la dugg. xaw ma mhm. man kañ laa ko bàyyi. mais nag Pape Sarr nag. non rek man moom la moom moom farceur la boo xoolee boo xoolee bu ñu demee. farceur weesuwul wax weesuwul wax weesuwul. waaw wax weesuwul. Balla Gaye. Gris Bordeaux ñëpp génn. ñu arrêté Pape Sarr si ñiy saaga kilifa diine yi. waaw mu dem ñoom ñu dem ñoom ñoom ñooñu. Mm. waaw dem nañu foofu kër euh, kii ministre boobu. Amadou Ba déedéet. Mm. Pape Farba Ngom ñu naan yow may xeexal kilifa diine nga ne baax na ci Pape Sarr. Mm. ku doon wax loolu. ñoom mbër yooyu. <laughs> kilifa diine yi ñuy saaga Seexul Xadim. waaw di saaga maam Abdou di saaga kilifa diine yi. Mm-hmm. yow demoo xam nga ñoom seen devoir moo nekkoon lan. moo tax xoolal. képp ku ci wax dama dama képp ku ci wax damaa juum. Hmm. génn ci site internet dama lay bàyyi. ok man dinaa dinañu